politique modernisation daara euh, kenn réewul mbir ne bu dafa bloqué fi mu ne nii entre l'État et les acteurs intéressés au premier chef mu di sëriñu daara yi ñun jotoon nañ ci def ay émissions sur plusieurs plateaux de télé jotoon nañ ci tamit interpellé par écrit le président de la République euh, avant président de la République Macky Sall sax sa jamono Ablaye Wade boobu j'étais porte la de la mouvance présidentielle la def benn séminaire pour naxarlu l'arrêt brutal de la mendicité bi nga xam ni le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye moo génnoon benn arrêté di gouvernement wax ne kuñ fi jàppati ngay yalwaani daan yi lii la lii la te sa sëriñu daara moom tamit il sera pas ñun on s'est inscrit en faux bien que on était membre de ce régime ñu ne ko ànduñu si ça ne veut pas dire que ànd nañu ci yalwaan yalwaan moom c'est à bannir la morale la plus élémentaire daf ko réprouver parce que c'est dégradant n'est-ce pas pour, pour, pour le statut de de, de l'être humain l'islam ko kenn rafetlu ko waaye xool leen lan moo waral mendicité ma ne ko la responsabilité elle est partage entre ñun père de famille ak yéen état ma ne ko damay jël exemple ci père de famille yu fiix yu mel ni man nga xam ne dañu considérer daara yi comme des dépotoirs des échecs scolaires de leurs enfants ndax man sama doom échoué def kii échoué def entrée en sixième échoué ma ne ah du ma ah, awma moyen yóbbu ko euh, public privé léegi lu may def damay oh, laajte ma ne waaw xamu leen fu am daara fii. Ah ñu ne ma ah loolu nga yaakaar. si suñuy gëstu. dafa am ngeen jàpp ni dépotoir pour man ñi échec à l'école déjà weesu nañu dem daara ci la bokk euh, non pas pas forcément mu dem ba en grand sixième mais déjà le bas am na père de famille yoo xam ne xëy na fourniture école wala jàpp nañ waaw jàpp nañ école tubaab dafay dafa cher ça coûte cher ci li ngay sol tu m'as tu m'as compris voilà bu ko defee may fourniture bi cher na ci pay gi cher na et cetera ma daal di bëgg lu yomb ma ne waaw xamu leen fu am daara fii ñu ne ma ah am na oustaz bu ñëw Birama Kamara daa daaraam day daara bu mucc ayib la xale yi dañ fay génn xam-xam ma daal di ñëw ci yow yagar yagar indi xale bi daaj ko avec la fameuse phrase. nee na Serigne Serigne Birama Kamara ay yaxam la laaj dóoral dammal loolu lépp te weer du dee ba ma indi paquet suukar ne la ah sama maa la dimbali ci daara yi wala weer du dee ba ma indi kilo ceeb ma bàyyi la ak sama doom Mamadou Albert ñëw tamit déchargé doomam ci yow aadama ñëw def na kenn def na yow nga jëkki jékki ci se retrouve avec dix vingt trente quarante tali à ta charge te yow bëgg def lu baax rek moo tax nga def ko delloo leen seen i waajur bu dee mënuñu la jox benn ndàmpaay boo leen mën a jàppale fekk xëy na yow ci un retraité ah, municipal et autres la nga am akasinéw ci pension retraite pour nga euh, faj ci say euh, aajo say soxna ak say doom c'est un ñu xëpp la trente quarante te yow boo ko nangul ko waaw loolu moo fi am nag nga ne mënuma ko dellu parce que ci wàllu diine la alors euh, sëriñ daara boobu bu une heure di jotee mu ne xale yi dem leen yalwaan yi mais ñàkk pexe moo tax bu njëkk yalwaan dafa am lu mu doon formé ci ndongo daara bi mooy maanaam modestie jox la mooy maanaam humilité euh, voilà hmm? ngay di hmm. voilà loolu dafa am lu mu doon formé ci nit mais du woon léegi bu ko defee mu nekk yow sa daara nekk un dépotoir parce que parents yi ñooy ñëw di décharge wu daal di ne Birama day ku laa biir la mu ngay yar xale yi te xamuñu yow jafe-jafe yi nga nekk kon nag yow seul moyen bi nga am pour dundal xale yi parce que sa poche attanu ko mooy dem nga leen dem leen yalwaan alors loolu laa wax état bi parce que dañ ma convoqué woon présidence pour me demander des explications ma ne leen loolu mooy responsabilité ñun père de famille qui sont des des de la facilité yéen état seen mooy walla di génn benn liste c'est pas la peine fii pour bañ a heurter ma ne les écoles privées laïques tel école yéen a ngi koy jox trente millions de subventions par an tel école 25 millions telle école 50 millions ma ne ko preuve yaa ngi nii pendant ce temps les daara n'ont rien venant de l'État alors ñu tontu ma ne ma le président Abdoulaye Wade discuté na avec la banque islamique de développement ba décroché na benn soutien de 9 milliards pour ñu démarrer le projet de modernisation parce que lii ma lay wax ni c'était entre juin juillet 2011 donc le régime était pratiquement en fin de règne waaye ne leen mu ne ma nag bu Ablaye falowaatee. 9 uh-huh. milliards yooyu état bi dina jël 1 milliard teg ko ci muy 10 milliards ñu doog a démarrer projet yàlla dogal euh, euh, régime ba faleen bi Macky Sall la ñëwee <laughs> ñëwaat à l'attaque dal di ne ànduñu ci. ngeen bëgg supprimer de manière brutale la mendicité te amul naka la ngi sax aucune mesure d'accompagnement premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne dégg coow li oom mais ma quel problème ma ne ko ñun nous sommes une organisation euh, ONG euh, islamique nous faisons corps avec la préoccupation de sëriñu daal kon projet de modernisation bii ngeen wax ngeen jox ko sëñ Mbaye mu ànd avec son équipe dem di seeti sëñ Abdou Aziz Amin di seeti Serigne euh, Sidi Makhtar Mbacké les xalifes généraux quoi lu la yaa xay lan mooy yoonu xalifes généraux yi ci daara yi ils n'ont pas le temps de s'en occuper mu ne ma kan kan la ñu war a waxal ma ne ngeen wax ak les vrais interlocuteurs ñoom oustaz Adama Seck ñoom Moustapha Lo yi yore la fédération nationale des associations des écoles coraniques qui regroupe cent daara boo leen waxul ak ñooñu ko leen di waxal mais mais mais mais alors mu ne ma ah loolu de loolu de xalaat na alors yàlla def na nag et je n'en tire pas gloire euh, associé nañu la fédération des associations des écoles coraniques ci discussion waaye ba tey réglé wul parce que ils ont mal communiqué avec les khalifes généraux ñoom euh, état bi ba tey ils ont dit qu'ils associent désormais la fédération des associations des écoles coraniques waaye ñu ngi continuer seen démarche ci xalifa généraux yi daal di jël le projet de modernisation traduire ko en deux langues français ak arab ba ñu demee ci xalifa général des mourides jox ko sëñ Sidi Mokhtar dafa jël benn jox ko sëñ Abdoulaye Salam ñoom ñaar ñëpp ba ñu ko liiree ils se sont parlé au téléphone bokk même position ne ànduñu si quand l'État a lu tax xalifa généraux yi rejeté le projet de modernisation des daara la réponse de sëñ Sidi Mokhtar a été claire dafa ne bu ministre bi ñëwee nañ. pour moderniser daara bi dañuy laaj maanaam taalibe yi fu ñuy fanaan ñu ne ah benn kër bu nekk en chantier te eggul day moom lañ leen abal ñu ne bon dinañ leen fa génne yóbbu leen bërëb sàngam nga xam ne dañu fay nekk en sécurité wala boog dañu nekk ci benn hangar boo xam ne amul toit waaye ñoo moom foofu ñu ne waa dañ leen ci defal toit mu ne loolu modernisation la xel mën na ko nangu ñu ne waaw fu taalibe yi fanaan ñu ne day ay ci mbés la ñuy tëdd ay basam wow ñu ne waa dañ indil ay matelas éponge c'est plus confortable sëñ Sidi Mokhtar nee na loolu xel mën na ko dekk modernisation la waaw bu ñu soxlaa ndox taalibe yi ni ñuy def ñu ne ah, dañuy wër ci kër yi de di ñaan ndox ñu ne waa dinañ leen xëccal ndox tuyau mairie bi di ko fay loolu xel na ko nangu et cetera bu ñu feebaree fu ñuy fajoo xanaa dañuy tàllal loxo yàlla rek ñu ne kon dinañ leen jox des tickets sëriñu daara bi yor ko taalibe bu feebar nga jox ko ko mu dem ci poste de santé di gën a jege te du fay dara sëñ Sidi Mokhtar nee na loolu xel ko nangu waaye anam bi Seydil Hadji Malick si Amadou Bamba Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass daan jàngee alxuraan loolu bu ko kenn laal mënee su ko moderniser c'était ça le point d'achoppement parce que ñoom dañu dem di sob soblu ñoom état bi bu bëgg modifier curricula bi hmm. anam daal di ko def même système que le système euh, scolaire euh, classique hmm. laïque hmm. foofu la coow li amee